lan mooy sa fii ci Tivaouane. waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi euh, dama lay sant d'abord yow mi nga xam ni may nga ma occasion fii ci béréb bu tedd bi euh, ñu nuyu sunu mbokku tiijaan yëpp xam ngeen ni tey événement bu am solo la sunu sëriñ euh, sunu lépp di bàyyi ci man di sëriñ Abdoul Aziz Sy Al moo doon recevoir président de la république mu ñëw ni ko ndokkeel ci gàmmu gi. ñun nag ñu nekk euh, ay chef de service au niveau de la région ñu invité ñu ci cérémonie bi loolu moo waral sunu teewaay teew naa fi également en tant que responsable politique parce que xam ngeen ni damay jiite benn mouvement boo xam ni ñu ngi ko tuddee mouvement Doolil Macky fexe ba président Macky Sall mbooloom gën a yaatu dans la région de Thiès mais particulièrement dans la commune de Thiès loolu nag boo koy def xew-xew bu toll nii am fi président war fee ñu mobiliser sunuy militants ñu teeru ko à Thiès dafay rafet ñu ànd ak ñoom egg si fii ba ci sëñ bi ah fekkee jeetaay bi taataan waxtaan bi ngir mën koo egge militant yi loolu rek moo waral sunu présence fii waaw. yow ñu duppee la Babacar nga gis président li mu réalisé fii ci dëkk bi lan lay def ci yow. waaw loolu loolu bokk na ci li nga xam ni moo motiver sama décision pour ma dugg ci politique bi euh, président Macky Sall dafa doon koo xam ni kuy def lu am solo la ci këru diine yi gis ngeen bërëb bu rafet bi ñu nekk moom moo ko moo ko tàmbali moo ko defar bu mel nii. loolu nag bu ñu amee président mu mel noonu muy dugal këru diine yi loo xam ne lu am solo la ah di defar ay bërëb yu tedd yu mel nii vraiment ñun jullit yëpp dañ ko war a jàppale. loolu moo waral véritablement man ma soobu ci politique bi pour yaatal langam pour gën ko jàppale ndax lu baax li muy def di ko def ci këru diine yi mu mën a am occasion am deuxième manda di ko fulal di ko yokk ngir diine ji jëm kanam parce que aussi euh, bu ngeen ko seetloo muy discours président muy discours. Euh, porte-parole xalif de Tidiane ay discours yu am solo la discours la yoo xam ni dañoo woo nit ñi pour que ñu delloosiwaat seen i xel ñu gën a yar xale yi xam ngeen ni Sénégal dëkku diine la war nañu véritablement li nga xam ni mooy yàq yeneen réew yi ñu moytu ba mu yegg si Sénégal te yar jikko yi defaraat jikko yi yar xale yi loolu bokk na ci li nga xam ni mooy musal Sénégal te véritablement discours bu am solo la man jàngat boobu laa jëlee ci discours bi waaw. waaw président bi jàpp naa ci ñaari affaire ñaari affaire benn affaire bu njëkk bi mooy président li mu waxoon mi koy def donc nit kuy wax di li muy wax nga koy def kooku da ngay kontaan da nga ci mën def parce que na woon ko nekk lu ponctuel dafa nekk bu mu déroulé ñëpp gis na li mu def Tivaouane gis na li mu def Touba gis na li mu def Ndiassane gis na li mu def Niassène te ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ci mi ngi koy def ci domaine boobu donc la mu waxaan maa ngi koy def kon ñu ngi koy ñun ñu ànd moom dañ ciy kontaan li ciy fier tam waxee affaire valeur pour ñu dellu ci. waa parce que moom c'est un acteur majeur du monde quoi qu'on dise dafa am leadership donc gis na li xew ci dëkk bi li xew ci réew yi gis na li xew ci àddina bi xam na ne nag lu ci bari ñàkk valeur rek moo indi loolu loolu moo tax muy inciter les populations ñu dellu ci valeur bi jaarale ko ci ñi nga xam si ñooy leader d'opinion yi comme les marabouts les chefs de famille et cetera et cetera pour que ñëpp dellu ci valeur yi parce que boo jàngul xamuloo lan mooy islam da ngay neex a jël yóbbu fu nekk foo xam ne si du yoon wi donc ñu ngi dimbali bu baax muy incité ci loolu mu nekk presque une campagne de communication loolu defe naa ne ñëpp dañ ko dégg. ni bi ndax dal na xel pour combat électro yi di waaw man awma dut ci loolu parce que ni ma gis nii par rapport ak li nga xam ne ci moom lañ mën a mobiliser individu ñi liggéeyloo leen wateloo leen ça n'a rien à voir ñun amuñu benn njàqare ci élection yi ñëw. waaw parce que nag quand même nan waxante dëgg Kajoor ñëpp xam na ni Macky Sall moo ko kooku moom bu ñu xoolee résultats yi jaar yëpp depuis quatre cinq ans ku xool xam ba lire statistique yi xam ne Macky Sall moo moom Kajoor léegi kay consolider moo des bañ a tooy bañ a nekk fii di bañ a liggéey nee na nan dem ci base bi bàyyi karawaan yi tous les week-ends que les à la base pour wax ak nit ñi yee leen ci politique bi muy def jafe-jafe ñu nekk ñu génn leen ci buñ ko mënee buñ ko ñu xelal leen bu ñu ko defee amul benn problème pour gagner législative ak présidentielle bi nii jërëjëf.